salaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jàmm ci Sen Sport Barcelone dal dina am ndam ci kanamu Almeria ñaari bal ci dara tey jii ki nga xam ne doon nañu ko amal muy 36e journée Barça nag doon ci xëcc li nga xam ne mooy ñaari li place bi nga xam ne Girona da ko foqati woon ci loxoom tey ji Barça dal dina ci tegaat tànk bu dëgër ndax xam ngeen ne rek laataa muy jouer match bi am na benn poñ bu muy jiite woon Girona ndax xam ngeen Girona ni ki démb dañ ko dóor moo tax tey jii Barcelone dal di dóorati moom itam Almeria ñaari bal ci dara Fermin Lopez moo marqué li nga xam ne mooy ñaari bit yëpp ci quatorzième ak soixante-septième minute moom sax de mooy homme du match moom gën a gile tey jii titulaire la woon ci jogante googu kon Barça victoire bi nga xam ne tey jii am na ko tax na mu dal di jiitoo Girona ñeent poñ voilà Girona mu ngi ci ñetteelu place bi léegi quatre points la ko Barça dal di jiitoo mu mel ni daanaka rek des na tuuti mu dal di dégg maam dëgëral li nga xam ne mooy ñaareelu place boobu bu fekkente ne daal match bii di ñëw Barça gagné na ko ci équipe bii di Barcelone voilà ñu gis na nag Barça googu ba tey amna ñu déggo seen digënté ki nga xamné mo Sergi Roberto bu ñu sukkandakoo ci taskatu xibaari xamna nañu né Sergi Roberto ñu ko yokal ben at kon mu wara dess fofu lé nga mom dafa waron joggé fofu bu saison bi jéxé ndax contrat ba fay jéx ci wa Savi waxon na ci lu leer né yéene moy capitaine bi dal di fay dess Sergi Roberto kon nak Sergi Roberto dina gungé Savi wala déggo mom amna na xëy signagul contrat bi bay déggo mom ne nañu am na at bo xamné amul ben option ngir dal di ci yokkat benen loolu moy li nga xamné mom la kayiti xibaar dal di biral kon loolu xëy na danañ ko jëmmal ci bés yi di ñëw mom mi sax di tay gi la woon ci jongante googule David Alaba moom taskatu xibaar yi xam la nañu ne dina dem ci Europe ak ñi nga xam bi xam na ñooy nekk ci banc bi di jàppale ki nga xam ne mooy coach bi xëñ na moom xam na joueur yi xam na équipe bi voilà nekk na koo xam ne daal duñu ko bàyyi ginnaaw Ralf Rangnick bi nga xam ne mooy tàggat équipe boobu di Autriche kon dina yóbbaale ki nga xam ne mooy David Alaba su ko defee mu daal di koy teg ci wetam donte ne mënul football xëy na dina am ci yenn côté yoo xam ne dina ko mën a jàppale ci équipe boobule Real Madrid Carlo Ancelotti yene moy dal di lo ki nga xamne mom lañuy wax Thibaut Courtois ci final Ligue des Champions bi buñu sukkandako ci yenn ci taskatu xibar ño xamne lolu tax Thibaut Courtois kat performance yi mu jote wane ci bésile tax na ki di Ancelotti dal dal di am li nga confiance bu baax ci mom japp ne xëy warna mëna jouer ci li nga xamne ne mooy jogante gu mel léegi nag bi nee moy di jouer lo ki nga xamne moy André Lonin ci match bi nga xamne Real Madrid warna ko am digënté mak Villarreal bu dal jouer lo ki di Lonin waaye nak ba ca top muy match ba mujju contre Betis ki nga xamne tibo Thibaut Courtois mu dal di ñëwaat ci camp yi bu fekkente ne jeu na match bobu nak li di final ba mo cey top mom Courtois momo dal di jeu li nga xam moy final Ligue des Champions bi bu ñu sukkandikoo ci taskatu xibaar yi du nak lo xam ne la bu ñu jégg déggé ci ki nga xam moy Carlo Ancelotti ci bopam waye dal am na yenn ci taskatu xibaar yo xam bind nañu ko wala ñu bayyi xel lolu kon bu amé bu mbett kenn ndax kat performance yi mu jot woné wane ci match bi nga xam wessu na moy match bi Real Madrid do am ni ki barki démb gis nañ performance yi nga xam dal dina ko cey wane mom kii di Thibaut Courtois Ngolo Kanté def na retour ci li nga xam ne mooy équipe nationale bu France gannaaw bi nga xamee ne kat lu mat ñaari at mbaa lu ko jege jéewul ak équipe nationale bu France léegi nag dellu na gannaaw bi mu demee ci Arabie Saoudite voilà dafa def jaloor yu am solo ak équipe am boobu di Al Ittihad Didier Deschamps dal dina koy woo voilà ndax xam ngeen ne bu France bi nag dafa bëri ay coppite ku ci mel ne ñoom Paul Pogba ak ña doon àndal ci digg bi ñu ci bëri ne dina war a dem ci euro boobule ànd ceeg France waaye nag li nga xam ne mooy liste des champs boobu bari na coow lool ndax daf ci am joueur yoo xam ne ña ngay toj seen ne jamono bi gis nañu ne bokk na ci attaquant yi gën a tàng ci Ligue 1 française 33 match yi nga xam ne joué na ko mu marqué ci 20 buts ak 5 passes décisives waaye kii di Deschamps da ko fee bàyyi du moom képp am na ci ñeneen ak ñeneen voilà même Olise boobu nekk ci Crystal Palace ak ki nga xam ne mooy Malo Gusto ni moom gone gi mën naa football lool te xale la Malo Gusto waaye nag ki nga xamante ne mooy Deschamps da ko fa bàyyi ak ñeneen ak ñeneen bari nañu daal waaye daal ki nga xam ne mooy N'Golo Kanté moom dellu si na bokk na ci boobu boobule. ki nga xam ne mooy amat Diallo moom nag dafa daal di prouver wane carrément ne kat moom moo mën ki nga xam ne mooy Anthony bi nga xam ne koppar yu takku la Manchester United def ci moom jëndee ko foofu la ci Ajax waaye ba mu ñëwee ci United ak léegi daal deful fa dara dara lu am solo ñu gis ne Amad Diallo temps de néew bi nga xam ne am na ko daal dinay wane de moom moo gën a mérité sax di jouer ci kanamu ki nga xam ne mooy Anthony loolu kayiti xibaar ñoo ko bind di xam ne ni daal moom ki nga xam ne mooy Amad Diallo ñaari yoon képp la titulaire ci saison bi bile ñaari yoon waaye ñaari yoon yooyu nga xam ne titulaire na dal dina ci def lépp loo xam ne ki nga xam ne moom la am ci bit benn la ak benn passe décisif te loolu nag bu dee loolu rek Amad Diallo daf ko dal di wane ci benn match benn match rek ci dal dal Anthony def na ko ci saison bi kon nag ñu gis ne avenir bi moom ama Diallo la moom sax day moo ko njëkk ci équipe boobu waaye nag ñu gis ne moom comme gars yi dañ koo jàppe woon ne xale la ñu koy ab leeg ne ñu dugg ci temps yi nag gis nañu ne mu ngi tàmbali ak équipe bi nga xam ne mooy Manchester te gis nañu li mu jot a wane du ñàkk ñu wéy di ko jox chance loo ci mën a dégg daal wane na xarañte walau wuuteeg Anthony bi nga xam mom bu fekkone lañ ko jëndé cherul sax ñu né waaw waaye nak copar yi ñu def ci mom mo takku lool ba nga li ñuy sentu ci mom dafa bari waaye nak li muy joxe dal di new lool Angleterre ñu fa déssé ki nga xamanteni moy Wayne Rooney xam ngeen ko ancien joueur Manchester United ak Everton mom nak dafa daldi di ci lu jëm ci VAR bi nga xamne ne jamono bi lëmbee na jamono coor bari na ba yéen a ngi dégg rek fane ñu leen di wax ne amna yeen ci club English Premier League yu ci melni Wolverhampton di wax ne dañu bëgg ñu daldi fi jëlé VAR ba loolu sax nek lo xamne ne war nañu ko tek ci penj mi daldi koy waxtane voté ko wax nañ leen ko démb Allah lañ ci wax yépp Rooney nak mom neena mom bëggul VAR dara da mom dafa japp ne VAR dal dafa ñëw dal daal di yàq football yi maanaam daal bànneex bi ci nekkon da melni ni da ko mu ne li nga xamne mo ci gëna doy mooy bu fekkente ne bit am na voilà léeg-léeg nga gis jour boo xam ne marqué na ab but waaye nag du mën a sax dem sax li célébrer li nga xam ne mooy bitam boobu dem feete ko du ko mën maanaam lan lay def mooy taxaw di xaar ba waar bi jox ko ndigal xool gis ne bit bi voilà jaar na yoon muy soog a dem feete mu ne loolu yëpp fans yi dañuy taxaw di xoolante di xaar mu ne loolu yëpp dafa nekk loo xam ne daal maanaam dafa boring pour moom daal waar bi dafa nekk loo xam ne neexalul football bi mais tax sax mu ñàkk xorom moo tax moom daal nee na moom moom bëgg ko moom Wayne Rooney dal nay gis ne bu fekkoonte yi itam ne décision yi ñuy jël yëpp dañ ko teg ci yoon mu ne konoon sax dana nekk loo xam ne dina tane waaye daal gis na ne daal VAR moom dëgg-dëgg nekk na loo xam ne daal maanaam taxul ko am solo voilà moom daal neexu ko moom bu Argentine xañ na moom ak ñeneen ñi mel ni moom bëri nañu foofu la ca championnat bu Angleterre ba tax yenn ci club jàpp ne VAR dañ ko faa war a jëlee ba tax ñu war ko teg ci penc mi wala daal di koy voté ci bés yi ñu dëkkmal comme ni waxee woon fukki équipe ak ñeent bu ñu voté lu jëm ci mbir moomu voilà nga xam ne mooy English Premier League ndax ñaar fukki jàll waaye ndax ñëpp dinañ ko woote anu la Mourinho wax de José Mourinho bi nga xam ne tàggat na ay équipe yàgg defi jaloore ci àdduna moom nag daal dina xam ne daal maanaam daal euh, ab sàcc rek mooy dal di complain lu aju ci li nga xam ne mooy caméra surveillance maanaam sécurité caméra caméra yooyu nga xam ne dañ koy fixé ngir muy jëng maam euh, sàmm li nga xam ne mooy euh, kaaraangeeg nit ñi mu ne sàcc rek moo ci am lu ko naqari sàcc loolu nag dégg na laaj kon xëy na mën nga ci déggee ne bu fekkente ne daal gars yi jub nañu wala ñi nga xam ne jub nañu duñ am problème ci vaar ndax vaar dafay leeral am yu bëri yu yoo xam ne bu vaar amuloon dina doy waar lool waaye nag ko fi man naa solution waaye Mourinho moom waxam ji yaakaar naa tënk na lépp ab sàcc mooy bañ ab caméra bu ñu fixe ngir muy sàmm kaaraange naataangeeg nit ñi mbaa muy wane li nga xam ne jot na xew loolu nekk loo xam ne jamono bi lu mat a bàyyi xel la Mourinho moo ko wax Real Madrid jamono bi ki nga xam ne mooy Carlo ne mooy anam gi muy jëfandikoo kii di Jude Bellingham loolu kii xibaar bi di Marca moo ko xamle gannaaw bi nga xamee ne sintu nañ ne kii di moom dina dem signé foofu la ci Real Madrid bu fekkente ne loolu xew na Jude Bellingham boobu nga xam ne dañ ko pousse ba mu jege loolu attaquant yi dinañ ko jëlee foofu yóbbu ko ci digg ba maanaam la nga xam ne moom la doon football ba mu nekkee foofu la ci Borussia Dortmund mu yóbbu ko ci digg ba comme ni ko Modric yi defee wala Toni Kroos na loolu la mën voilà nee nañ nag boo loolu moom waaye nag dina am impact ci li nga xamante ne mooy jeu bi ndax moom loolu sax la gën a mën jouer ci ligue bi wala di organiser wala loolu nekk loo xamante ne jamono bi bu fekkente ne Mbappé signé na ci Real Madrid moom kii di jut bi li nga am ci postam boobu lay dellu waaye dootul nekk mukk ca kaw di dimbale attaquant yi ba marqué ay bit da ko ca fekk comme ni ngeen ko gisee jamono bu muy xëccoo meilleur buteur loolu kon dina dakk bu fekkente ne Mbappé dal dina signé ak équipe boobu di Real Madrid